ginnaaw loolu finaalu tay bi suñu laamu ñu xamal ne diggante Kaw Gourdin ak Caatu Daawda Fall foofee ca arène nationale ba ana fu ndam li jëm Dalifort la jëm wala fa nga xam si nii mooy diwaanu Géejawaay suñu laamu ñu xamal ne dimanche tamit combat bu rëy mi ngi xaar diggante Siteu ak Papa suñu laamu ñu xamal ne combat bu nar a ngi nii waaye ca heure convocation yi Papa moo war a jiitu stade ña ko convoqué 16 h le décembre la koy organisé ca locaux yi 2STV suñu ñu xamale mu ñu xamal ne Siteu ma fa mën am dam ci diggante ak Papa association bi nga xam se ni moo jiite mbëri ngir mu àddu ci suñu la mu ñu xamal

tàmbale samedi tey ji la teg nañ fa un million dimanche bi tamit ni ki suba teg nañ fa li xam si ni mooy enveloppe bu toll ci laamu ñu xamal ne waaran sa Dakar léegi officialisé nañ combat diggante ngeer bu sab ak ki xam si ni moo di Bour Sine ginnaaw taxawalee Zarko ak Mambala taxawal nañ tamit combat